ayca jërë ngeen jëf euh, Abdoulaye merci beaucoup Yacine Pouy jaajëf passe partout maa ngi lay béggee ah Mame Dieye kontaan euh, ci ñi nga xam ne ñu ngi déglu RFM rawatina ak seen journal des faits divers xalaas ma ànd ceeg Mamadou euh, Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye comme tous les jours Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. jaajëf Ndiaye ñi Aba ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar Ndiaye di ziar l'homme fort de Ngabou di ziar waa réew mi ñëpp rek. di leen ñaanal jàmm yàlla yàlla def jàmm ci réew mi te def ko ci biir kër yi def ko ci bërëbu liggéeykaay yi yàlla na ñëpp am jàmm. min yaa rabbi waaw waaw min mhm. noo def. maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi ziar maa ngi nuyu inspecteur. Mhm. Ndoye Bane maa ngi lay nuyu Abba maa ngi nuyu waa Sénégal également. Mhm. am na solo da ngay dem ci sponsor yi wala ñu. ayca munu cee ñàkk. ayca may yow laay faral dégg nga ne peccum liir bu neexee. yaa jaatee ca mbagg ya. moo tëyee ca wagg ya. comme noonu la demee nañu tàmbale ci sponsor yi. Euh, doore ak euh, comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS euh, spécialiste ci sani wàllu sanitaire fii ci Sénégal ak ay salle de bain de dernier cri mën ci plomberie mën ci tuyauterie waaye ñi nga xamante ne ji dañuy yëngu ci agriculture wàllu mbay xam nañu ne li ñuy def ci irrigation ñoom waa CCPS ci matériel d'irrigation amul fenn comptoir commercial de plomberie du Sénégal di partenaire ci xalaas yor yu baax yi waa réew mi soxla ci bépp fànn nag tuyauterie plomberie wala sanitaire wala matériel irrigation am nañu place ci rue Valmy angle Ngalandou Diouf ña nga rue Floris angle Grassland wala rue Tolbi ak angle Faidherbe comptoir commercial de plomberie du Sénégal mën nañ leen a jot ci 33 821 14 80 wala 77 517 98 29 wala 77 401 cinquante cinq soixante neuf beneen partenaire bu ñu àndal ci xalaas mooy Laris Laris di benn sérum américain boo xamante ne ji. Mhm. dañ koo defar ci anamu mucc ayib muy dimbali nit ñi nga xamante muy góor di jigéen képp koo xam da nga am problème mu karaw muy xam karaw guy sëq wala karaw goo xamante ne ji màggam euh, gaawul wala karaw gu nooy nga bëgg mu dëgër euh, utiliser Laris Laris ñu saytu ko ci laboratoire yi mu war a jaar euh, xool ko na mu ware ñu gis ne dafay enrichir sa sa sa maanaam sa ak karaw mhm. euh, dafay favoriser euh, cuir chevelure bi ngir karaw gi mën di pousser ni mu ware di ko digal góor di ko digal jigéen góor ñi leel wala ñi nga xamante ne ji maanaam karaw yomb leen mm. ñoo ngi leen koy digal képp koo xam ne soxla nga laris di sérum américain boobu gaaw ci mayee karaw karaw bu baax nag bu dëgër da ngay euh, dem fële nga xamante ne moo di ca lay cosmétique marché Sandaga la lay cosmétique nekk lasmétique ngeen mën ko woo ci 77 656 80 18 mu di euh, lay cosmétique nekk Sandaga euh, promobile puce mbégte bi suñu moomeel mooy euh, puce bi lëmbee réew mi jamono ji mooy puce bi mm. xew ci jamono mooy mm. opérateur bi waa Sénégal jëlanteel ndax dañ cee gis yu baax ba noppi ñoo ko moom kenn du ñuy fekk naan lu ngeen ciy def. Hmm. Euh, sunu moomeel puis su mbégte bari xéewal yu ca nekk. bi ci njëkk hmm. mooy puce bi 1000 francs lay jar. Hmm. boo ko jëndee di nga ci fekk 5000 francs crédit di ci fekk également 750 mo ngay connecté nu la neexee service commercial bu promobile 60 euh, service commercial bu promobile 16 75 ngay def a jokkoo ak ñoom. bu fekkente di bàyyil wala bu promobile lu raar lu jafe nga 75 525 00 00 75 525 00 00 am nañ nag lu mat 24 agence ci réew mi. Hmm. suba ma indi la offre yi nga xam ne promobile indil na ko waa Sénégal. am na solo donc bu ko defee nañu dem ci li nga xam ni moom mooy xalaas baan ñu ngi lay. masawaat bu baax a baax a baax. teraanga Sénégal day ñëw léegi teraanga ah. deux mois leen jëm. 60 ah. jours bis bu ne 1 million. ñu ay léegi nag un million bu ñu étalé ci émission yi am ci biir kër gi yëpp ci rajo bi comme à la mm. télé maanaam téléspectateurs yeeg internautes yeeg auditeurs yi dañ ci yëg seen bopp bu baax ñu ànd ceeg Wave xam nga moom mooy transfert bi nga xam ne fi ñu ni moo gën moo mën loolu moom euh, fekk nañu wax ba noppi waaw léegi nag bu ko defee ak yi ñu ciy maye yooyu yëpp nag ay Samsung Galaxy Fold bi baa baan yor <laughs> iPhone 12 yi nga yor njaay ak yi ak ay ak ay yeneen ak yeneen yoo xam tabarkàlla ay salon ak ay chambre à coucher <laughs> xanaa dama yéen a gaañ ay frigo side by side ay wallaay dëgg yàlla yàlla day ay xam nga yàlla daa bëgg ku koy sant te yenn say nga sant yàlla bañ naan waaw moom day wanewu ndax sant gi dëggu mhm. mooy nduróog wanewu nag ku ne yëkkati sa ñun ñëpp ñu fi toog nag ne yëkkati sa portable bi nga yor nu xool ko waa xanaa li neex na ay ca eh <laughs> mais mais mu ngi noonu ay ak li nga xam ne mooy teraanga Sénégal groupe Futur Média nee na euh, askan wi ñoo ko def li mu doon. Mm. donc moom du leen fàtte benn yoon ci li nga xam ni day am ak fin d'année bi euh, ren dafa metti fen dana bi ànd ak euh, li nga xam ne mooy corona bi dana bi méttiwul de année bee métti année bee métti <laughs> waaw waaw waaw waaw année bee métti ci fin bi mu waaw waaw a métti donc ñuy bàyyi xel rek ñi nga xam ne mm. ñooy askan wi ba tax ñu def loolu ñu def yëpp 60 millions xam ngeen ko ko may say téléspectateur ak say auditeur mooy yow li nga wut ci at mi yëpp soxla woo ci dara mm-hmm. Mm-hmm. mais baan dafa am leneen lu am waaw ca Thiès. dafa mel ni li ma liir ci journaliste yi ñoom Ndiaye ñu ñu bind ko. nee nañu waa ji bi mu reyee soxna tubaab bi ba noppi. waaw ñu ne. Mhm. ñoom njaay waaw soxna nit ku ñuul ki moo ko dimbali ñu jël femme bi yóbbu ko ba ca àll ba daal di ko fay suul. loolu ko dimbali ñu jàppoo néew bi dugal ko ci coffre bi coffre oto bi waa ji moo dem suuli ko. loolu loolu loolu lool loolu loolu amul. bu ko weddi de looloo ci xam da koo fekk. waa déglu ma rek ay xibaar yi wér. te wóor. waaw moom laa lay jox. fii ak man de yaa ma ci doy man. xibaar yi wér te wóor mooy. Mm. waa ji dafa de génn kër gi. Mm-hmm. ndaw si di deko ne ci femme tubaab bi ne ni jabaru waa ji jabaru sénégalaise bi kan yi génn leen sama kër yaak sama jëkkër. tubaab yi moo doon deko ay sàcc ngeen. génn leen sama kër. ndabaru sénégalaise bi woo jëkkër ji ni ko ndaw si nee nañ génn këram. Mm-hmm. mi ngi deko ne ñi nga xam nga ne këram la waaw. Mm-hmm. waa ji jóge fële ñëw ak mer dugg ca biir néeg ba. fekk tubaab bi ca néeg ba mu mbëkk ko dóor ko tubaab bi daanu bopp bi dal ci suuf hmm? foofu la faatoo jabaru sénégalaise bi mi ngi dégg kër kër kërti kërti gi ci la ñëw jox ko quinze mille francs hmm. jabar ji ni ko demal ci sa yaay aw mbuur ndaw si sax nee na nga jëndaaleel ko ay crevette jox naa ko garabu asmaam bi mais bi mu ñëwee ndaw si nee na ko dégg naa yuuxu yi mbaa rayoo ko jabaru sénégalaise moo ko nee na ko mbaa rayoo ko mun ko déedéet jox naa ko garabu asmaam beeg nakam na naka yooyu noonu. ci la ndaw si jël ay bagaasam dem mbuur moment boobu ay 14 nag. Mhm. ci la ko waa ji jël ci oto. Mhm. yóbbu ko suuli ko. ba mu koy suuli booba ndaw si dem na mbuur ndaw si jàppalewu ko. liir naa sax ci li nga wax ci ci ci mhm. ci internet bi ak yenn presse bi ñu ni jabar ji sénégalais bi moo ko jàppale ñu dugal ko ci maal oto bi. nettoyé lii nettoyé c'est pas vrai nettoyage amu fa. ndaw si jàppale ko ndaw si du ci dara ndaw si li ñu koy toppee mooy li mu yëg déegi yëg ni jëkkëram rey na nit ba pare. te ñetti weer te kalaamewul noo de dénonciation lañ koy toppee. Hmm. mais euh, rey euh, gisul koor bi ba tey. li ma lay wax nii nag xibaar yu wér te wóor laa lay. yow ku la ko wax. ah déet ameen ah, ah, man kay pas yow yow affaire yi fii la départ di ah, xalaat yaa ngi yow a ngi wax journaliste yi moom mu ne li ngeen wax euh, demeewul noonu nii mu demee dama bëggoon euh, moom waxam gën a leer moo tax ma laaj ko bu ma ne woon ma ne la la règle d'or de tout journaliste mu bañ wax ni kii ma ko wax mais ki ma ko wax ku jege la xam nga yéen da ngeen wax euh, proche de la famille wala proche de source de source A waaw de source ñun ñun jànkaar ci quartier dañuy jàngal de source A maanaam de source sûre hmm. man fi muy jëlee samay source ay source yu wóor course de gars yi li li ñu bind noonu ni ndaw see ko jàppale loolu c'est pas vrai loolu amul. loolu si jàppale sa version. foofu laa laajee nag loolu amul foofu laa laajee yow yow yow fi mu ne yow joxeel sa version. Mhm. te bañ a mhm. gis nga même Serigne Bassirou Gueye procureur de la République bu toogoon wax lii. Mhm. ñu ne ko joxe sa version te bañ a weddi version bee. ñoom autant tu fais confiance à tes sources autant ñoom aussi ils font confiance à leurs sources. ñoom yow sa source lii lañ la wax njaay ñoom it seen source lee lañ la wax sama source yi wóor na ma wóor goo xam ne man moo tax ma taxaw nii baan bu tubaab ñee lañ wax amul wax la ne nii la demee man xaw ma ban man xaw ma ban journal la ko binde waaw d'accord d'accord naa ma ne journal bi ko bind waaw oui lim bind wérul même même ci yel mas moom mu ñu ray tubaab bi bu dekki woon wax la ne nii la demee waaw ma ne ko bul weddi source ñee yow waxal say source waaw waaw mais mais kon kay ku nekk am na El Hadj Assane ku nekk sa baat daw na sa yaram njaay affaire yi fii xam nga affaire yi hmm? am na trois mois waaw effectivement fii la leere de fii ci xalaas la affaire yi départ. Ah. waaw loolu am na. yenn enquêteurs yi. Ah. man mii lañu woo maa lañ jox interview. xalaas ban pour nga noppalu. waaw yow laa àndal. waaw man nga lu may bañ. waaw nga weddi ñenn ñi. non ni li ñu wax yow laa ànd parce que histoire bi yow yow yow bu ñemaa bu fekkee nga ko sax du ma ko weddi parce que lu nekk yaa ñu ko ci wax. kii moom fan la nekk moom. kan ci Babacar mi ñuy seet. Babacar la ñuy seet. man Babacar waaw koy seet. Babacar mais. du ah, faal de. Camara sax de de du faal de bu dee Babacar fan ko teg. déglu li Babacar def. parce que dafa am benn waay bu fi nekkoon koo xam ne doon def ci moom mu yëkkati woon benn ko au début quoi léegi comme si que man chaque fin de mois dina am bénéfice ci moom bu ñu liggéey 2 ko ne ko na ko dugalaat ci ci dafa métti ci xol du man rek la ko def ndekete man au moins sax man daf doon liggéey ak moom ndekete moom ah, ndekete finish da liggéey ak yeneen booy mais pour wàllu yóbbu la ñu tukki quoi visa pour yóbbu leen Europe leneen wax. mais man tamit victime laa ci cas bi. parce que waa ji mu ngi tudd Babacar Badiane. waa ji daf ma bett man nii daf ñu bett ñun ñëpp. waaw moom daf fi nekkoon ak jabaram. genre mais ñun ci affaire voyage la ñu waxoon. voilà que ne day yóbbuwaate Belgique voilà am na link bi ci biir ambassade bi ñu waxtaan mu ne il faut ñu joxe comment dirais avance vraiment dafa nekk nit koo xam ne bu toog ak yow buy wax ngay gëm mu woo ñu këram ñu ñëw toog waxtaan ci voyage bi mu bindul ñu décharge ñu jox ko xaalis xaalis bi ñu ngi ko ko joxee nag Sénégal benn waaye copain am bu ñuy wax jàllo moom moo jël si xaalis bi ba kër suma euh, grand bi ki nga xamante ne moom moo ma jox xaalis mais client la parce que man maa ko boole ak grand ñu jox ko fa huit cent mille francs mu bind décharge moom jàll boobu depuis Sénégal mais waa ji fii tamit moom da ngay da lay bindal décharge foofu Sénégal maanaam man maa nekkoon intermédiaire man dane mu jékki-jékki yóbbu jabaram ak ay doomam ñu ñibbi Sénégal ñu toog benn jour dimanche ñu koy woo nag jotuñu ko foofu la affaire bi commencé fu mu toll nii nag amatuñu benn écho ci moom li ñu jàpp daal mooy dafa dajale suñu xaalis daal. Babacar man tamit dafa yóbbu sama xaalis tam yoon jigéen laa ma nekk Maroc fii di liggéey. ma am ku sama rak bu ma yónnee fii xaalis pour ma jëndal ko marchandise valeur un million mu yóbbu ko ci palaasu Madibo Madibo defaral ko euh, desage lépp te boobu ba léegi nag su ma ko wooyee duma ko jot te yóbbu na ay njabootam dem naa këram fekkuma fa mu jox ma ay faux chèque ma ko laajee ba xam xaalis bi yegsi na mu ne ma xaalis bi yegseegul mu ne ma chèque baa ngi ne heure bu teel bi heure bu xaalis bi yegsee rek dinaa la jox sa xaalis xaalis baa ngi Sénégal loolu la ma wax te man nag dama nekk jigéen su nekk xam na ne àllu dafa metti bu ma nekk Maroc fii di liggéey ba sonn Babacar Badiane di ma ko yóbbul Maroc dafa metti dajale fi cinq cent mille sax dafa metti asantuma ak un million nañu jox suñu xaalis baa nuñu ko ko tey baa baaluñu. waaw ma ne ñeneen ñi aussi ñu jël seen un million ñii seen am na ku ñu jël sax trois millions man. mënoo au moins prix sama 2 millions 550 bi lañ ma jëlal. dafa daa préparé coup bi parce que. rawale na jabaram ak doom yëpp yóbbu leen Sénégal ñu dem dem yoonam kenn xamul fu mu nekk actuellement. soo ko WhatsApp doo ko jot boo ko vocalee doo ko jot. xam nga kenn xamul ci lu mu nekk te yóbbu na xaalis yu bëri bëri bëri bëri la yóbbu. maa ngi nekk Maroc Casablanca. di daan sama doole di mbindaanu Babacar tiriyaande ma un million yi tojul dërëm liggéey ku ne xam na ne liggéey jànk dafa metti mu yóbbu sama xaalis yóbbu sama un million un million nu ma ko dajalee fii dafa metti ku xam na ne àll dafa metti instant bi sama xol bi dafa jeex tàq mënumaa wax barke Seydina Mohamed bañ gis Babacar Badiane génn na Maroc fii ñun xamuñu fan la nekk buñ ko wooyee duñ ko jot affaire transfert lañ seet mu yóbbu suñu xaalis nii jabaram mi ngi Sénégal Babacar Badiane yaayam mi ngi tudd Dégéen Njaay am na carte séjour marocain delloo ñu suñu xaalis li lay war a suul ndax xaalis bi def ñu lew fajar la ñuy jóg amuñu ay duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg. man maa tax man mu xam Babacar mu def jëf jii fi mu toll nii ma lay waxanteel li lekkatuma ba suur naanatuma man ma taba man. jabaate bu dul liggéey fii sam dàppali fii dem am xaalisam ba muy dem sax ndaw su mu dëkkuloon mooy dëkkandoom yoroon na ko deux cent cinquante mille jabar man aussi yàgg naa ko wax ne ko Babacar mun naa ma ko sama diggante yow joxe naa ci yàlla billaahi wallaahi bu fekkee ne alal ju leew la sàcc ma ko fenn ma ko nga bëgg koo jël noonu wallaahi yàlla du ko seetaan xalaas hmm? ñoom Babacar daf leen a daf leen a tëggal transfert d'argent la bi woon encaissé xaalisu gars yi ne fes jël jabaram ak doom ñibbi si Sénégal moom kenn xam fu mu ne ñun ñii jéem nañoo jot Babacar Boson ak jabar ji mun ñu ko jot mais Sénégal yëf ne foofu am nañ problème seen xaalis dem xam nga lu ma metti ah. nit booy njublan ah. da ngay doon ko kenn xamul mais yow bu fekkente ne da nga am jabar am ay doom ah. am ndey yow bu la lenn li jigee sax ñoom bu ñu déggee sa tur fa ñu toog vraiment keex saa leen di rey vraiment nit da ngay am nawle vraiment am luy rus am luy jomb Ndiaye ah. xam nga foofu foofu lan fan laa ko njëkk a xalaat hmm. euh, xalaate coow am Thiès. Hmm. xam nga jàpp nañ waa hmm. jàpp xale yi. dañoo ay doom yuy jàng. yoo xam ne ay innocent lañ ñoom seen avenir. mais fu ñu jàngi ñu naan seen bàyyi def léegi léegi. mais tamit loolu tamit euh, sa gars yi waroon nañ cee xalaat de. Ah. gis naa ñu bindaat ne gars yi dañoo waa ji dañ door dóor dóor yu métti pour mu wax. non loolu amul. ah gis naa ñu bind. loolu c'est pas c'est pas vrai man li ñoom Ndiaye bind rek laa ñoom Ndiaye ñoom Ndiaye liñ bind amul. wax li mu doon waa ji dañ ko doon enquête. léegi dañ ko dóor dóor yu metti ba. kenn kenn dóoru ko. ah ko liir de. waa déglu ma rek moom ni mu demee man kay li ma lay wax nii kenn du ko dindi. Thiès lañ ko commencé enquêté muy bañ di wax di continuer di wax li mu waxoon ci xalaas bi ñu jëlee ko Thiès indi ko fii Colobane section de recherche dugal ko si salle sëkkatoo ko ku posé question ba sonn génn keneen dugg dañoo dem ba képp ko ndaw si ci boppam portable mi ngi ko fay ay ay ay ay ay ay 9 heures 34 la maire la ñu fay portable maire bi Yaasin moom doon wax maire boobu dër boobu te te te te ma maag Aba ñoo bokk coalition. coon sekk président waaw maire boobu nekk doon doon doon ci sonn. Mhm. maire bi bi mu taxee ci buntu kër gi di woote ay 10 heures yooyu kenn jëlu ko jékki-jékki portable bi fay ay 9 heures 34 la portable bi fay. comprends nga. Mhm. yooyu yëpp policiers yi di ko ko laaj di ko ko laaj portable bi benn booy moo ko for. fekk ñu formaté portable bi génne puce bi. ah man de ñoom Ndiaye li ñuy bind. xale bi bi waa ji waa ji bi mu ra waa ji waa bi mu rayee waa bi mu rayee waa ji bi mu rayee ah. bu pare bu ndaw sa pare am na benn dëkk bu mu dem ci dëkk Petite cot bi xam nga ngàpparu la wax am na fu mu dem. Mhm. ni dafa demoon jëli foofu ay mesures. ci li muy liggéey xam nga entrepreneur la day tabax. Mhm. dafa jëli woon ay mesures fekk jëlil woon ay mesures ci benn gelam la demoon. xam nga nit ba pare tiit il faut nga dem foo foo foo mhm. foo kii noppaloo foo divorcé mu ni dafa demoon ci benn dëkk fii nii dë dëkk boobu mu demoon demoon na fa mais ci benn gelaam la demoon gars yi dem nañ ba entendre gel bi ba déglu gel bi ñëwaat Thiès muy continuer di weddi ñu indi ko dakaar tëj ko ci benn salle toog ak moom enquête ko section recherche la mu claté hmm. dégg naa booy dugg ci buntu saal bi ci buntu bi ngay commencé weer sa bopp. voilà c'est ça c'est ça gars yi suñu la wëree dañ la et puis gars yi dañ lay cuisiner dañuy dem ba am lu leer di la laaj. doo doo weddi lépp sa téléphone bi si nga jaar yëpp la ñuy wax ñi nga woo ñëpp boo fa toogee fukki nit dina ñëw ku ñëw laaj la sa tur dellu c'est ça njaay loolu njaay loolu njaay kenn attanu loolu ku ñëw laaj la sa tur dellu njaay paa bi noo tudd nga wax ko keneen njaay ji njaay moog digga kii su mag kii mat nañu pàppa kii di waaju wax takk na jabar fukki jabar juróom waaye avant muy takk première femme ba nas lépp ba pare ba teg ba war a dem takki dafa tëdd bu guddi am lu ko feeñu ku jigéen feeñu ko ak ñaari xale. ni ko li nga ma trahir gi nga ma nar a trahir soo ko defee tivaal dina la coûter cher maa ngi yow ñu ndabante bëggante ba am ñaari doom nga nar maa trahir ni dangay ngay takki jabar soo ci delluwul ginnaaw di ko rëccu. mu def ni mu def ni ay gént la. waaye ñamu jéem a takk ak ñamu takk ñii dañoo dee ñii feebar. Hmm? paabey nettali ba fi mu nii nee na mi ngi retraité retraité na te amul sax doom. mais moom ku ko wax loolu. ko mu labat ba lay waaj a takk. nga feebar feebar bu metti mbaa nga faatu. Hmm? mais moom ku ko wax loolu. moom moo ko dund. mais moom kan ko feeñu ku mu gis ku mu gis ci génn jigéen. xamu ko xamu ko ku jigéen la génn ku ak ñaari doomam déglu ko. li ma lay wax ni sama problème garaaw na garaaw goo xamante ni gii maa doon di taale. ma màggalee noonu xaw ma ci dara bi bi nga xamante nii dem naa ba nga xamante ni maa ngi commencé labat ay soxna maa ngi labat di labat di labat di labat mais toujours damay gis ñuy am problème ba yàlla def ma am sama benn xarit papam ku siiw la woon ma gis rakkam bëgganteeg moom noo ko waree takk yàlla def na nag mariage mais bi muy mariage yu waree am la veille euh, ñu jàpp jeudi ci guddi gi bi ma tëddee dafa benn xale bu jigéen bu ñëw sama kanam quoi di wax ak man naan ma ni gis yow ni ñu yàggee nga nekk sama borom kër tey jii nga trahir ni da ngay bëgg da ngay sëy ak keneen loolu dafay day waar man duma ko nangu te ñu ngi nii am ñaari doom maa ngi gis mu ngi taxaw ak ñaari xale yu jigéen yu rafet rafet ay xaleel ñoom ñaar ñëpp nag yàlla wax dëgg yàlla jigéen lañu bul dugg ci mariage yi soo si duggee nag dina gis li ma lay def ah bon ma def jàpp ko caaxaan quoi ay mun a kii ay affaire yu gént ak yooyu ko alors que c' la réalité. nga jouru mariage ba li ci am su ma la ko waxoon sax na nga yéem jouru mariage bi am na ay misaal yu yéeme ci am suñu waa kër bi nu waree di ñëw di takk si. sama papa yebal leen parce que boobu sama papa mag la. sama frère ak sama jarbaat papa. ñuy ñëw ci yoon wi. ñu ñëw ba ci yoon wi seen auto accidenté. ñu beneen sept place bu ñëw mu dugalaat leen sept place boobu ñëw avant muy ak seen Dakar bu ñëwee bay waaj a dugg Dakar. oto boobu crevé. ñoom ñoom bi nu agsee pour ñaani rek soxna si bëñ attaqué ko étitu bëñ attaqué attaqué ko mais ci guddi gi affaire bi dafay yokk quoi ndaw si li def def ba ma defee ni day day dee ci guddi gi quoi tiit naa trop wax dëgg yàlla moom sax bu bu ma la joxoon numéro ngay woo ko laaj ndaw si day faatu ci guddi gi mu jóg toog bi sa teem xëy kërëb kër mais ndaw si bi mu yeewoo ma xool kanam bi billaahi wallaahi taalaay sama fit yëpp dem na kanam gi neewil na nag benn façon neewi boo xamante ni bii maara day daal xam nga yàlla def ñu dem après tuuti ñu ñu am problème ma jéem jéem lu ne pour affaire bi bañ a tas mais finalement mu tas ko bi mu tasee su la ma sama nijaay yóbbu benn euh, paa bu ñuy wax ñu dem foofu bi ñuy dem ñu dem ba ànd fekk paa boo déparé la veille avant ngay ñëw sax xam na lépp muy mbaañ daf ma doon wax kooku lépp lu la topp boo demee du àgg ci këram ñu demee oto da lay yóbbu ba fenn nga jël saret pour àggale yoon bi parce que yoon bi metti na ci kaw saret bi lañ ma duma fi ma jóge ci kaw saret bi avancé damaa nga daanu ci kanamu fas ba fas bi sax mënoon na jaar sama kaw bi ñu demee ba àgg bi di wax ba paa bi nanguwul tontu quoi après ñu fa ñibbi si ñetti fan sama nijaay delluwaat sa quoi mu ne ko mais sama jarbaat bi keroog lay wax yoo xam ne mu nekk ko sa jarbaat bi bëgguma woon wax ci kanam muy décorage li mu àndal dafa réeg réegoo xamante ni maa day taali waxuma nit du ko faj de mais sëriñ dëgg koy faj mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko sëriñ dëgg dëgg dëgg dëggantaan a koy faj mu ne ko parce que li mu ànd rëy na rëy goo xam ne bare na bare doole goo xamante ni bis boo duggee ci di ko faj bu am na boo barewul bagage sax sa bakkan mën na cee des. léegi après sëriñ baa ko wax loolu. waaw soo leen bëggee ñu yeggale ko wala ñu bàyyi. ba am na lu ca topp. parce que bi mu demee ku njëkk ki. waaw dafa feebar ba mujj gi. sëy ba dafa mujj tas. Mhm. papaam di jaayam yóbbu ko ci benn sëriñ boo xam dañoo yéeg oto ba ba ba ba oto ba mënta dem ñu yéeg sareet dem sëriñ ba ni leen. kii duma ko faj. wax ko ko sax ci kanam xale mi ak nijaay dafaa dellu mënu ko kii du ko faj du ma dugg ci ay affaire am te ko dugg ci ay affaire soo dëgërul bopp lool da ngay faatu mu ñibbisi gisaat beneen xalaaj bu jigéen labat ko kooko dafa feebar ndaw waa ji ci boppam tëdd gént ñu nul ko néew gel bi deux jours après xale bu jigéen bi faatu. Hmm? mu doxaanaat keneen noonu. mu doxaanaat keneen ku mujj ki nag moom kooku kooku da ko ëpp bopp kooku nag dafa gént ndaw soosu jabaru jinneem bi. Hmm. ndaw see ko gént ni ko yow bis boo duggee ci gi xeex ak moom xeex bu me waa ji mooy nettali paa bi mooy nettali moom histoire bi. mais loolu lépp wax na ko. lépp wax na ko. bàyyi ba suba. waaw ko relancer sax pour mu gën a continuer parce que des na yu bare bare waaw mais saa yi am na ñoo xam dañoo am ay jabaru jinne ak yu kenn xamul de. man teg biñ ko teg nii sax dama cee xaw a ragal man te mu jinne ji daal ni ku leen ko tegloo xalaas lu tax nga dem xalaas wóorul de. man yàlla dafa def ndax biñ biñ ci tegee man ba tey dama cee mu naangu ma ci benn yoon yàlla dimbal ni ma ci loolu nañ dem allo présidence. <laughs> président de la république réew président ci côté Robe Colobane sax naka résidence de référence bari victoire góori présidence de la république ñaaci bala la république mu résidence du président de la république bi nga xam ne mooy demeure historique générale quartier Dakar plateau capitale Sénégal construit en 1902 sama déppal ba xam naa yàgg la ilaha illallah mu nekk la résidence officielle du gouverneur général Afrique occidentale Léopold Sédar Senghor Dia 1964 Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi ñu xaaral ba xam kii woote bëgg a jot président de la république ko la woon wala salaamaaleykum allo ça nu mu demee. maaleykum salaam kooku joxal sa tur ak sa sant ak fi ngay wootee. man la Khadim Sall ah. jaay ko tugg ginaar quoi. yow la. Khadim Sall ah. jaay ko tugg ginaar. Khadim jaay ko tugg ginaar. oui oui fan. waaw maa ngi ci booru sori ma leen dara ah. ah. Eh, lu waral sa woote Khadim ci waxtu wi. ba ba ba benn instant quoi oh, dafa am uh, lu lu lu ma bëgg a wax quoi lu lu lu am solo. ah ja ja waxal ma dégg. parce que uh, ñu ngi jaajëfal bu baax a baax a baax. ñii quoi. ñan. ñaari xaaral waa dër. dafa xaw a waa tu tu tuuti nag. <laughs> ah di jaajëfal bu baax a baax co co communauté catholique bi. vraiment ci seen taxawaay quoi ci euh, fête bi nga xam ni moom moom moom moom lan dë dë dëmal quoi. Euh, di aussi jaajëfal communauté ju ju jullit yi quoi tamit. waaw waaw ndaxte xam nga. ña ñoom ke ke ke kenn mënut euh, bàyyi sa sa sa morom quoi. Mhm. jullit ak ak ak ta ta talib ah. mais mais xaalim. waaw waaw li euh, euh, moo tax nga woote. li li tax ma woote. waaw. mooy ga bi ma leen jaajëfalee ba pare. waaw. man jaaykatu ginaar laa ko waaw. te xam nga ni ginaar ak feet yi. maanaam décembre gi daal. waaw da da dañuy ànd. mais décembre gi feet amul. waaw lool lool lool moo moo moo ci metti te li ci gën a euh, yéeme ñoom kaas ñiy jaay mbaam. ka kaasal nañ mbaam yi quoi mais. fi fi fi ma leen meree mooy da danoo kaasal mbaam yi ba ba bàyyi ginaar yi quoi. non mais dama ni. waaw maanaam feet rassemblement yi la ñuy bañ moo tax feet amul est-ce que ganaar yi dinañ mën a dox. mais jaay ak. rassemblement ma mën naa wute ma bokkul dara. waaw ndax nit ñi foog ñuy feetu nag jënd ay ganaar. defar ay bagage yu baax. bu mu mën a kii. xam nga man xeeti ginaar yi ma yor Sénégal am fi ndax ginaar yi ñu ngi jóge ba ba ba Bangkok. Bang lan. ba ba Bangkok. Bangkok genn. waaw ba ba Bangkok lay jóge xam nga ku yor ganaaru du du du dundul futt yor ramata njilaan. yor da da daagoo. yor da da daagoo yor ci ci ci coox liix. Mhm. yor ganaarug ak ak ak kalaw. Mhm. yor ganaarug jë jë jë jéem yéesi. Mhm. yor ganaarug pettaaw. yor seq. yor euh, ga ganaarug ndare. xam nga ni yo yo yo yo yo ganaar fukki saaf. sa sa sa sa sa saqam yi. sa sa sa sa seeñu ci ci ci ban lañ ko mën a amee. dama ni même boo dee boo dee seeñut nii yaa ngi jaay wala jaayoo mi ngi dox wala doxul. do do doxul. doxul ndax gars yi wax ni du du du du am moo tax ganaar yi taxaw. pour waxaale ak yow dina métti. non non wax bi moom yàlla la quoi yow yow sax. xam nga ni yàlla la. xaarim xaaral waa Louga ah waa Louga nga yow. wa wa wa waaw sànq ca ca al al al cëcc Algérie. Algérie waaw ak montagne. ah moom moom waaw <laughs> waaw wax nga ko. ja Xaadim. ah oui ma votre correspondant ne peut être joint pour le moment veuillez appeler ultérieurement nuyul ma waa Louga. Écoute sur RFM.